Amadou Gaye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa leen bu baax. voilà euh, tey jii ñu dégg leen ngeen di artu ñu bëggoon a xam lu waral tey ngeen di yéglu waaw li ñuy yëglu dafa yomb maanaam président de la république daal moom dafa jàppoon ni rek secteur boulangerie faaw ñu defal ko. Mhm. mu def benn décret vingt deux soixante dix sept deux mille dix mhm. pour xool naka lay jàppale boulanger ñu génn ci jafe-jafe yi. ñu ne ci commerce bi ci nekk nit di ko doxal nag ni mu ko waree. Mhm. parce que mi ngi góorgóorlu di def lu nekk. parce que loolu mën nañu ko seede te def na effort yu bëri pour vraiment pour que boulanger yi naka la ñuy génnee seen jafe-jafe mhm. waaye dañoo xool ni moom amul jumtukaay yëpp pour mën ko def ndax sa décret bi na mu tëddoo ah dafa war am ñu bëri yeneen ministères yu bëri dañ see waroon bokk. Mhm. pour jàppale ko si liggéey bi loolu amul. boulanger yi nul dox nul dem. d'accord nañu lu nekk ñaari at ñu ne kon dafa doy kon nañu pexe te boulanger yi nag sonn nañu di wax ñu ko ñun nag syndicat lañ yore il faut ñu xool ban solution la ñuy defal suñu boulanger ñu ngi leen daal ñun yoon mayu ñu yokk mburu mhm. yoon mayu ñu mhm. kon mun ñoo yokk mburu kon lu ñu duñu wax loolu mhm. benn yoon lañu gis mooy amoon na fi ay arrêté octobre boo xam ne pour Dakar la ak euh, octobre deux mille dix neuf ak euh, février deux mille vingt arrêté yoo daal dana tax ñu mën a jënd euh, defar mburu yu gën a euh, rëy mooy mburu deux cent trente grammes mm-hmm. ak mburu cent franc bi ak mburu fanweer bi mm-hmm. waaye ñun nag sagam syndicat la ñu dañoo bëgg a digal suñu boulanger yi ñu leen ah jafe-jafe yi nekk secteur bi ngeen si bëgg a génn da ngeen di gën a defar mburu bi jar deux cent franc mm-hmm. bi nga xam deux cent trente la moom mooy leen si génne ak mburu cent franc bi mburu mburu cent bi boo ngeen defee du ngeen lor askan bi dañ ko mën a jënd. mburu mhm. deux cent bi aussi borom kër ni ko mën que day gudd day rëy nekk bu baax. Mhm. parce que ma xamal ni mburu fanweer bi ngeen di daanaka euh, consommateurs yi lañ koy jëndee en réalité cent lañ koy jaayee mburu boobu xott la parce que yàgg wax yéen mburu xott la ñuy jaay. Mhm. ñu jàpp ni kon jot na Sénégal tey ñu jox ñu mburu bu baax loolu moo su waral mbir moom ah la si tofal mooy. interprétation yi maanaam ñàkk dégg-dégg bëgg wax ni boulanger dañoo yokk mburu mhm. ñun yokk ñu wax na léegi bëgg intimider boulanger yi di leen jéem a xoqatal loolu aussi bu amee rek lañ ah kon faaw ñu te suñu fur dëkk ñoo moom suñu fur ñun ay industriel lañu duñu nangu ku ñu xoqatal loolu daal la ñu wax ne fi euh, moo waral jóg bi te si ñun ànd ak euh, boulanger nag mhm. ànd ak waa RPS regroupement des boulangers du Sénégal pour ñu ñu dëkk benn say ma jël seen baat di ko pour ñu xam ne boulanger Sénégal la ñoo wax loolu parce que dañoo bëgg a avancer loolu loolu moo leen mën a avancer loolu jaay mbuur deux cent ci say biir wax yaa ngi ne toog ngeen lu toll wala diiru ñaari at di xaar lan moo waral xaar gu yàgg googu alors que seen mbir mi dara saafara euh, amu ànduñu ci ay solution waaw ñu nga xamoon nañ ni mbir mi yombul du yomb parce que euh, loi Sénégal moom boo ko defee rek faa ñu xool yan pexe la def ba mu gën a ba mu gën a baax hmm. essayage bi yëpp ñu ànd ko am nañ ci commerce ma ngi góor mu mu jàmbaare loolu nag foofu di ñu di di def lu nekk ak ñun nag. Mhm. dem ci terrain bi di def lu nekk di wàcc agent bi def lu nekk loolu moom moom moom nañ ko seddal moom. Mhm. waaye nag jàpp jàpp jàpp nañu jàpp jàpp nañu mais nag mënul mënul kii mënul euh, mënul def mu kese loolu tax nag ñu ni bon ah gën nañu taxaw xëy na bu a président de la République déggee dana woo ñeneen ministère ñu jàpp jàpp loolu dong loolu dong la xaar bi nag moo doy moo tax ñu ne xaar bi doy na dafa doy. ci leerlu rek sànq ci say biir wax yaa ngi ne euh, sénégalais yi kon dinañ am choix kon daal euh, jarul nit ñi di def seen xel ne euh, deux cent francs rek la ñuy jëndee benn bagget waaye nit ki mën naa am possibilité jënd benn baguette bu cent gramme wala bu beneen gramme bi nga xam ne dina ko jëndee ci ay njëg yu bokkul. man leen moom naa ko rassuré askan bi. Hmm. du ñu def leen luy lor askan bi. loolu moom nag nañ jàpp ni boulanger lu ñuy def dara lu leen di lor moo tax moo tax ñu ne bu alxamesee danañ leeral loolu yëpp pour benn kenn bañ ñoo jaxase ak yéen loolu moom dana leer dama bëgg nag ñu xam ni ñun ay sénégalais lañu dañoo yore njaboot di leen dundal dañoo yore seen emploi lii na da ngeen bëgg ñu continuer di def mburu cent cinquante bi lu bëri boobaa loolu ku koy def lu bëri da ngay tëj sa fuur fu yaa ngi tëj rek loolu la ñu bëgg arrêté léegi nag kon état bi est-ce que dana nangu bu état bëggee nag pour yu tëj ndax bëgg a tëj pour formel nañ ko nañ ko def kon boobaa la nga dégg pour yëpp lañ lañ dañu tëj léegi loolu nag dañuy fippu pour di defar mburu loo xam ne moom la ñu jaay moom moo gën si ñun danañu tax ñu fay suñuy bor yi loolu laa mm-hmm. moo tax may woo boulanger yi am ngeen loi moo leen ko may jaay ci mburu 200 bi nu mu gën a yoon mel leen. justement ci mburu 200 boobu la monsieur Gaye bu ñu dégloo ministre bi ci euh, sortie maanaam doon andi tontu euh, ci seen alerte gi ngeen def dafa mel ni terew leen ngeen jaay mburu 200 bi mais dafa am euh, charte yi nga xam ne moom lañ leen tegal. dafa ne loi bi dafa ne lëkkale bi dafa ne. Hmm. mburu ci boppam waxuma la mburu 200 de. Hmm. kenn amul droit jaay ko su dul wala si espace aménagé maanaam boutique boo xam ne ni ko aménagé. Hmm. loolu la ñuy wax te loolu boutique boutique aménagé ko am fii Sénégal ndaxte benn boutique mënuñu mënuñu ko aménagé comme ni ko décret bi waxee kon nag coow amul kon muy muru deux cent muy muru foofu amul encadrement euh, euh, passant bi suñu koy encadré loolu moo ne test bi donc ñoom kon nag li ma bëgg a comprendre dans ce hmm. kon ñoom mën nañoo aaye mburu deux cent si boutique yi waaye kon mënuñoo aaye mburu fanweer si boutique yi nga xam ne yoon da ko mu déggee dégg-dégg bi la kon ça veut dire que kon bu dee dañ ko encadré kon mburu fanweer bi ñu gis si boutique yi fi mu toll nii kon ñoom ñoo ko tey bàyyi ko si biir kon bu ñu fa dugalee mburu deux cent kon kon lañ ko bëgg a jëli ji jëli ji ah kon loolu nag na nekk beneen combat. loolu daal nga jàng noonu daal nga jàngatee euh, mbir mi. noonu laa ko jàngatee parce que mburu si boppam lañ ne mburu si boppam warul dem warul dem si boutique mburu si mburu warul dem ci boutique. kon kay muy deux cent beeg cent franc bi amul encadrement amul problème. waaw mburu mu dem ci boutique moom euh, kan lañ ciy joxoñ baaraam tuma euh, du boulanger yee ko jël jox ko boutique yee yi. wala waaw waaw léegi ma jox la exemple. du hmm. nga gis ci kaw télé bi nii. Hmm. ay chauffeur di dawal n'est-ce pas. si hmm. chauffeur yi am na ñoo xam ne amuñu permis te pourtant ñu ngi dawal. dëgg la. noonu la demee kon kay état moo war a moo war a lijjanti ñun boulanger dañu mën a dañu mën a def suñu bopp ñun ñoo protégé wuñu benn boulanger nag de. képp ku jalgati yoon nañ ko def si yoon ñun loolu la ñu wax waaye nag état moo ñu war a atte parce que ñii ñuy yóbbu mënul si bëri yi boulanger ñooñu dañ leen a ñun ngeen wax ne di ngeen jàkkaarloog taskatu xibaar yi buñ ci weesoo ndax mën nañoo xam lan ngeen di tëral plan d'action ndax dinañ dem ci grève googu ngeen di woote. lépp mën na see nekk de alxamis moom lépp dana leer alxamis. Hmm. yéen déglu mu gën la mos dégg ci say biir wax monsieur gay yaa ngi wax ne yow yaa ngi jaay mburu bu 200 francs te it ci ngay woo say ñoñ euh, ñu dox ci yooyu les tànk euh, ndax te ji pare ngeen pour def ko sans pour autant ngeen waxtaanaat ak gouvernement. dama ne benn waxtaan lañ mën a def ak gouvernement bi. mooy. mooy naka la ñuy ba appliquer réglementation bi. waaye affaire format yi nii moom nee leen njëkk dañ koo homologué te arrêté bi génn bu yàgg ba pare. waaw loolu jaww waxtaan ñun mënuñu si arrêté bi génn bu yàgg li ñu waxtaan bi kay mooy naka la ñuy fexee ba réglementation bi jàll loolu la loolu moom loolu moom comme si woo ñu wuy si la. et justement ci réglementation boobu li loon ci mën a wax ndax bañ ko tuddee léegi am na lu ci euh, soppeeku. réglementation bi ay ñetti pàcc la. Mm-hmm. pàcc bu njëkk bi mooy accès à la profession maanaam mooy naka lay nit ki di duggee si profession bi maanaam. Mm-hmm. autorisation nga war a am pour def ko. Mm-hmm. beneen bi mooy yow boulanger yi nga xam ne dañoo exister ñoom. faaw ñu ñu mhm. xam kan mooy kan parce que am na boulanger yoo xam ne amuñu benn këyit loolu noonu dañ ko war a régler mhm. loolu mooy benn mhm. bi benn mooy discussion mburu mi discussion nuñ koy distribuer yenn oto ñoo ko war a def nuñ ko war a anam lañ ko a defee beneen bi mooy yenn anam lañ ko war a jaayee beneen bi mooy norme norme te jàpp nga ni norme moom lu am solo la balaa ngeen wax dañuy sàcc poids dañuy sàcc poids léegi nag norme boobu da koy dindi kenn mën a sàccati poids loolu mooy réglementation loolu lañ bëgg ñu appliqué ko. d'accord ndax bañ ko tuddee léegi amul dara dara dara luñ ci def comme jéego. ah mais c'est comme ça def na si jéego yu bëri waaye doyul. doyul te nag léegi nag ñun dañoo jàpp ni kon bu ko état tey mu jeex mu jeex suba. waaw du secteur am la wala moom rek euh, dafa am yeneen loxo tamit yu ci war a dugg. waaw dafa am yeneen ministère yoo xam ne wala seen mbokk mooy ministère du intérieur ministère des forces armées ministère de ak yooyu daal ñooñu bu ci dugg léegi du baax daal. amoon na jamono ñu gisoon ne euh, ñoo ngi doon amal ay descente ci ay boulangerie yi nga xam ne euh, jaaruñu ci yoon ba tax sax ñu doon leen tëj euh, liggéey boobu fu mu toll ndax wéyal nañ ko. loolu daal ministre du commerce moo ko def ak à Dakar ministre du moom doon na ko def ak ñun ak Dakar. Mhm. ak gouverneur Dakar loolu essayé nañ jéem nañ jéem nañ ci ñoom ñoom au ñu ngi doon waaye nag lawul ci région yi. te bu ñuy défendre région yëpp la ñuy tey jii grève de la fédération des boulangers euh, nan ngeen jàpp ne ban impact la war a mën a am euh, ci feet yi ñu jëm. non nañ bàyyi ba jeudi rek. danañ ah. wax lépp waaw man maanaam ndax dañuy grève wala duñ grève lu def daal. d'accord. Euh, impact moom dana dana dana doy bu amee moom incha allah. ñu bëggoon a xam ndax mouvement bi yéen ñëpp la boulanger yëpp la wala fédéra ñi tënku ci fédération bi rek la. non mooy ñan noonu waaw regroupement des boulangeries du Sénégal. Mhm. merci beaucoup monsieur Gaye Amadou gay nga jiite fédération nationale des boulangers du Sénégal merci beaucoup. waaw conférence de presse dina conférence de presse conjointe entre FNPS ak allah.